وانغدا ذكر الأمين لك الكلي وجزادين asalaamaaleykum mbokki julli di mbokki taalibe yi mbokki waa Touba Argentine La Plata tey bu ngeen gisee jotaay bi am xam ne ñi ngi waajal bis bu màgg bis bu sell muy bisu xasida ñu war ko defal fii ci euh, La Plata xanaa di ci ànd ak jëwrin Moustapha Thioune jox ko kàddu yi aouzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu leen nuyu bu baax di leen ziyaara di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké Basir bu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal Cheikh Jëm Fall yàlla na fi yàgg loolu te wér Eh, di ñaanal mboolem taalibe yëpp rek waaw comme ni ko sëñ Bamba waxee rek muy appel bi nga xamante dañ koy def mu jëm ci lu jëm ci journée xasida bi nga xamante ni bi dañ ko amal fii ci Touba Argentine te ren ñu koy amale ci dëkk bi ñuy wax La Plata eh, ci daayira Jësbul Xulub xanaa ñuy woo mbokk taalibe yëpp rek képp koo xamante ni gi yaa ngi seetaan eh, Touba TV Argentine di dégg suñ kàddu rek ñu ngi lay woo ci bis boobu muy am le 9 juillet fii ci La Plata Eh, ñu ci dagaan teewaay mboolem taalibe yëpp yi nekk ci Argentine ak mbooteem jullit yàlla yëpp rek eh, mu nekk bis bu am solo nag muy bis bi nga xamante ni bii mooy bisu xaside yi eh, xaside yi tamit nekk loo xamante ni bii lu am solo la ci yoonu murit ndax comme ni ko Serigne Touba daan waxee rek ñett yi mu fi bàyyi woon muy njabootam gi ak jumaa ji ak xaside yi kon xam na ne nag jamono jii ñun moom ci xaside yi lañ gën a sës te moom lañ mën a eh, kii fii ndax njaboot gi moom jiitu nañu te jumaa jeet comme niñ koy waxee rek sori nañ ko kon nag xasida yi moo fi nekk kon nag ñu ciy woo bépp taalibe rek ak bépp jullit boo xamante ni bi yaa ngi weewoo fii ci Touba Argentine eh, di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci bis boobu eh, nga teewe ko rek ñu fas yéene magal xasida Serigne Touba yi fii ci Touba La Plata Argentine auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammad ibni abdullah wa ala alihi wa sahbihi sawil mayamin mbokk yi ñoo ngi leen di nuy bu baax di leen siyaare di leen bal wàq di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu baal e, bu ngeen gisee suñ toogaay bi nag ñuy waajal bis bu màgg e, ñu dëgmal ko muy le neuf e, muy bisub xasida bu ñu organisé fii ci Argentine tey nag ren waa La Plata doon ñu ko ayee ñu ciy soññi mbokki taalibe bi yëpp Euh, ci euh, turu sunu jëwriñ Serigne Moustapha Fall di ci soñi mbokki taalibe yëpp fépp foo nga xam ne nit ma nga fa euh, ci ci Argentine te man koo teewe ñu ngi lay sàkku sa teewaay nga teew fii ci bis bi di ci soñi waa dëkk bi nga xam ni ku ne xam na leen ci seen pësteef ci seen yar ci seen bëgg xaside yi waaye ci seen bëgg njàngum alxuraan mi surtout ñu ngi leen ci soññ bu baax a baax a baax a baax lépp loo nga xam ni waaye da ci doon jàpp rek ci màggal gi nga xam ne kon bis bii Euh, moo gën a rëy ci ci ci ci programme ci màggal gi kon fu ci waaye doon taxaw benn rek na ci fas yéene taxaw euh, ful ko ba mu nekk fukk loolu daal la ñuy soññi mbokki taal bi yëpp képp koo nga xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu jërë ngeen jëf bu ngeen gisee ki ñu toogal mooy jëwrin Modou Fall bokk ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu waañ bi eh, ñi nga xam te ne ñoom ñoo yor liggéey bi nga xam te ne ni dara dara dara dara ëpp ko ci solo muy wàllum bernde yi kon jëwrin Modou Fall ñu leen laaj rek yéen nan ngeen di waajalee bernde yi nga xam te moo jëm ci bisu xasida bi salaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi waa Touba Argentine ak Télé TV bu Touba Argentine ñi ngi leen di siyaar bu baax di siyaar kullu di siyaar suñu jëwriñ Moustapha Fall ak Moustapha Thioune mi nga xam si moo fi nekkal waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi leen di siyaar kon boo comme ni ko suñu jëwriñ Bamba waxee rek ñi ngi soññi waa Daayira bépp Touba La Plata ak waa Argentine gépp fépp fu waay nekk ñi ngi lay soññ si journée xasida bi nga xam si moom lañ fas yéene def fii si Touba. Argentine di 9 juillet ñu ci soññ kullu daal ñu ngi si soññ mbokk taalibe yëpp di si soññ Baay Faal yëpp ñi ñaan suñu borom ñu fu fekk ñu fekk ko ak jàmm ci bàkk Serigne Cheikh Fall Baye góor bàkk Serigne Cheikh Fall borom ndigal ñu ngi soññ ñëpp. ñëwaat rek àndaat ak jëwrin Cheikh mi nga xamante ne nii ñoom ñoo yor lépp loo xamante ne nii mooy wàllum limpieza bi mooy di nettoyer yeeg di forme bagage yeeg di nekk ci baño yeeg yu demee noonu ñoom ñoo yor loolu noonu. kon jëwriñ Cheikh ñu lay laaj bis bi nan nga koy waajalee ak sa waa group bi nga àndal fas yéene cee dox ci bisu xasida bi salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki La Plata maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu sama xarit sama soppe sañ góor sekk mais di ko ñaanal mu yàgg a bis bi moom it ah di soññ nag képp ku dëkk La rek nga xam ni bis bi sa bisa ndax amuñu lu dul xasida yi amuñu lu dul sëriñ Touba te ginnaaw yàlla lii rek moo fi des ci liggéeyub sëriñ Touba ndax Sénégal sori na lool jumaa ja sori na lool comme ni ko sunu jëwriñ ji waxee may ñaan rek képp koo xamante ni si yaa ngi yeewoo La Plata te mën a jàpp ci bis bi bu jour ba nga jéem a taxaw ci bis bi ndax lu ci rafet rek ci ñun la waaye lu ci yàqu nag ci ñun la ñoo ngi ñaan nag sunu borom mi man tey def defal ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabil alamin di ziar mbokki jullit yëpp wax dëgg yàlla waa daayira bi kenn amul seen fay jàmbaar lan ci côté yëpp waaye nag jàmbaar nga du tee ngay góorgóorlu yàlla na gën a rafet yàlla na nu yàlla defal fekke akuk tal ak wërsëg wun ci demee ba lin yéene ci bis bi suñu borom matale ko ci barkeb Seydina Muhammad maa ngi leen di ziar yéen ñëpp. waaw mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ñëwaat ànd ak jëwriñ mi nga xamante ne nii lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllum sécurité bi ñoom ñoo ko yor di ko doxal doxal boo xamante ne nii maanaam mucc na ayib loolu ñu fas yéene te laaj jëwriñ Mbàkke mu nan ngeen di waajale bisu xaside bi ak nan ngeen ci nar a taxawee ci wàllum sécurité bi ndax lu ci ama am am solo la ci sëñ Bamba ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbégte contentement lool ci question bi ñu posé fas yéene ci réponse ci li nga xam ni moom la suñu borom dimbali di ziar dayra Jazbul Xuloob di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Moustapha Fall waaw bisu journée xasida bi ñu ngi koy waajal bu baax a baax di si woo ñëpp nag di ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw fépp fu waay di yeewoo rek sa dëkk Argentine ci wax ashhadu an la ilaha illallah rek ñu ngi la ciy woo waaw wàllu sécurité bi nag moom yomb na yombul ndax foo xam ni ay mbooloo ñoo fa nar a daje ak ku nekk dina fa ñëw te kuy ñëwit ak jikko bi ngay ndaale waaye nag ginnaaw Serigne Touba woote moom lépp dinañ ko def ci ak dal ak ak teer rek di di wax ñi nga xam ni ñoom ñoo sol gilet yi ñoo ñooy waa sécurité bi képp koo xam ne ñëw nañ ci yow lépp luñ la defloo rek nga xam ni ñu liñ lay def loo ci ndigal la rek mais defuñu leen lu génn ndégal lépp lu la lépp luñ la tere rek nga xam ne danu la ko war a tere bu doon woon luñ la war a tere duñ la ko tere lépp luñ la bàyyiloo tamit nga bàyyi ko lii mooy gilet yi lii mooy gilet yi di siyaar waa capital gi nga xam ne sànq lañu fi jóge ñoom di leen jaajëfal bu baax a wax macha allah ñu bàyyi seen yitte yëpp déparé Buenos Aires ba ñëw fii La Plata muy bàyyi seen yitte yëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax di jiital ci néew ak siyaar bi seen jëwriñ Serigne Birane di leen jaajëfal bu baax di leen wax jërëjëf Serigne Touba. waaw mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen gisee jëwriñ ju baax ji ñu toogal nga xam ne mooy jëwriñ Sidi eh, yor li ci liggéey bi maanaam li ci ëpp solo muy wàllum alxuraan. ndax ku xam alxuraan rek xam ko digganteem ak Serigne Touba ndax Serigne moom maanaam mooy alxuraan te lépp loo xam te ne moo jëm ci wàllum alxuraan rek moom ci loxoom la nekk muy jëwrin siidi kon ñu ngi koy jox kàddu yi di ko di ko di ko ko laaj maanaam nan lay waajalee bis bi ak ci njàng alxuraan bi fan lañ ci toll ci jamono ji ndax xam naa ne balaa bis bee egsi dinañ ci def ay limu kaamil yoo xamante ne nii ci bis ba la ñuy doogay ñaan xatmu bi kon jëwrin siidi ñu ngi lay jox kàddu gi eh, bismillah rahmaani rahim Eh, alhamdulilahi rabbil alamina asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant eh, di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey rafetlu wax dëgg yàlla jataay bi ni mu taxawee eh, bañ ko commencé ba léegi di rafetlu wax dëgg yàlla li nga xamante laaj nga ma ko muy lu jëm ci wàllu alxuraanu karim ji ah ñu ngi sant yàlla wér a wér a wér a wér ndax euh, fas yéeneen cee liggéey liggéey bu rafet rafet rafet euh, wàllu alxuraan nag ki nga xamante ne moom moo koy rek muy Serigne euh, Mbacke Ndiaye yàlla dafa dogal dafa génn ñu taftal ma ci gannaawam fas yéeneen cee liggéey liggéey bu rafet di ko di soññi mbooleem ñi nga xamante ni maanaam ñoom ñooy jànkat alxuraan yi ñu teel a ñëw. jàppale nu ci njàngum alxuraan bi comme ni ko sëñ bi santane ndax comme ko sëriñ Tuubaa moom dafa bëggan alxuraan ba daan koy naan ko yaa kitaabal karim tax anta bi wa xalili wa kuntu xablu tabibi kon nga xam ne sëriñ Tuubaa ku bëggan alxuraan te ku ko fonkal la ku ko joxoon dayoom la euh, daanaka ni kon ñu ci soñ soññ ñëpp ñëpp di soñ wa pala waa la gépp di leen xamal ni euh, ñun bis bi sunu bis la euh, ay gan nag la ñuy séenu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni euh, man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri képp koo nga xamante ni gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba euh, fal yu krim day fan deel teral sa gan Serigne Touba di wax ci naju ni di leen teral gan ñi bu leen dikkee kon na ñëpp xam ni ñii ñëw suñuy gan lan lépp lu man ci teral leen nañ ko def ngir sàkku ci ngërëmul Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah